ma yëkkati nag sumay kàddu di wax ni dañu daan wax ni werante xuuxante ki tubay te ngiraaneen doonatul silib ci yëf yi ngiraaneen caaye la ci yëf yi léegi loo doon silib doon ca kilot dem ba doon ca caaya war nañ caa xam la nga doon te jàpp naa ni ngiraaneen caaya lañ ci ñu may fàttali léegi suma xarit suma wëllëre koo xam ne yàgg nañ man ak moom muy Moustapha Seck Mawo moom suma xarit la sama doomu ndey la bokk nañ lu ne Basirou Mafari commissaire Khadim yéen a ngi ci quartier population bu digne ñu gëm seen bopp ay liggéeykat ku leen xool xam ni bokkuñoo ñi nga xam ni foo tourné ci dëkk bi gis leen bu ñu xëyee ñu ngi ci marché bi bu ñu jógee ci marché bi ñu ngi ci seen i kër jeunesse bi suñu xëyut liggéey ñu ngi ci daayira yi ñu ngi ci seet setal bi te yaakaar naa ne loolu la ñuy tiitaroo ci ay jigéen mais loolu la ñuy tiitaroo aussi ci jeunesse kon donc Ngiraneen saf na sab ci yëf yi yàlla dogal ñu ànd di liggéey commissaire Khadim wax ko léegi daf ni yàlla dafa dogal ñuy dem élection di perte di perte di perte kenn xamul lu ko waral la président Macky Sall en bon visionnaire daat ni mankat jàpp naa ni bu ma tolloo fii war naa mën a natt nag samay gone ba xam mën nañoo tari waaw wala déet xale bu tolloo ci raam dugg école jàng ba yore diplôme am war naa mën a tari baa muy jàngale tey foofu la ñu toll ak président Macky Sall loolu waral mu jël suñu rakk suñu xarit suñu wëllëre muy la haut conseil Matar Diop jiital ko ci liste bi def ko tête de liste moom ak suñu xarit bi di suñu wëllëre muy Mafari Ndiaye. alors Ngiraane nag Basirou dañu am doléance boo xam ni muy guddi muy bëtëg muy xiin baa muy taw mooy seen doléance muy le marché de Ngiraaneen marché Maam Asta Waalo bi mooy doléance Touba Ngiraaneen autoroute Ila Touba bi dëgg la. am na njariñ pour commerçant yi am na njariñ pour ñëpp mais dama jàpp ni su marché bii àggoon autoroute Ila Touba ci côté commercial dana am lu bari loo xam ni marché bi dina ko ci mën a jouer ndax dina décongestionner marché ocas bari nañu ne ci kaw tali bi tey jii bu marché bi àggoon jàpp naa ni jafe-jafe dootul am bari na boroom kër yoo xam ni seeni kër tas na fi parce que 2006 lañ tas marché bi. bari na ci ñoo xam ne dañ daan daani seen doole tey ji amatuñu fuñ jëm parce que marché baa ngi nii son excellence nag la président Macky Sall jël na ci ay mesures ba tàyyi ba bu yàggul madame la ministre Assome Aminata Diatta bi mu fi ñëwee jàpp naa ni waxoon na ni président waxoon na la marché de Ngiraneen nañu ko def marché sous régional marché bi nga xam day bokk ci gën a rëy ci Afrique te marché bi attan na ko population bi attan na ko ñi fi nekk bëgg liggéey attan nañ ko kon donc ñu ngi ciy yaakaar Makhtar Diop au soir du 23. yàlla dogal aussi fii ci Ngiraneen du ay doléance nag ndax ay nit it buñ dee yaakaar di ñëw ci yow sañ nga wax seeni doléance su nawet jotee daara yi fi nekk yëpp dañu am ay jafe-jafe ndax duñu am ay toilettes yu dongo yi di demee dañu am problème mu tëddukaay te lu ci bëri bu ndox mi ñëwee day nangu seeni daara bëgg nañu ñu gestu leen ci. pour qu'au moins bu tawetee ñu mën a xam nan la ñuy def leer na ma ni fii ci Ngiraneen ak Kër Ñang non seulement nous sommes des responsables politiques nekk ci quartier bi mais Kër Ñang Ngiraneen dañu am centre de vote bu fi nekk mun na am 17 bureaux de vote tey fii moom danañ ko gagné incha allahu rabbi le centre de vote de Kër Ñang au soir des élections du 23 suñ ko perte ragal naa ni Ngiraneen duñ bëgg ma démissionner bis buñ ko perte ma bàyyi politique. c'est un engagement que je prends ici te ñoom ñii laa ci yaakaar te rafet nañ ci njor que ni li ñu war a def ñun bu ko Kër Niang defee le centre de vote de Ngiraneen moom danañ ko gagné incha allah loolu moom danañ ci dal. la ca topp nag ma bëgg a wax tuuti ak sénégalais yi ndax it nag am réew dafa am lu koy dooleel muy institution yi am réew dafa am ñu koy dooleel muy suñu kilifa yi ko ŋànk gone nag. am na mag mu ko waxoon su la tooñee da nga koy jël duma baayam gone bu la tooñee jël ko duma baayam waaw mënoo doon gone nekk ci formation politique ñu jàngal la politique xamuloo dara kala ko jàngal dem ba def la député nga nekk à l'Assemblée nationale saa bu fa ministre ñëwee nga am kàddu yu ñagas yoo koy sànni bu ëllëgee boo fa toogee yow looy wax je m'adresse directement au député Déthié Fall amut complexe parce que bërki démb képp lii mu def le ministre Félix Antoine Diome bu mu ko jàppee mu ko ngóora défaite la ci moom parce que il doit donner un bon exemple taxaw assemblée nationale laqatu ci sa ginnaaw kiiraayu mbalaanum kiiraay tiim ab ministre di ko wax lu bon loo xam ni gone gu ko dégg sax xeeb la yow ma koy wax jàpp ni ki nga koy waxal noonu la mel dama ni wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo wor na trahir na wax na lu du dëgg mais nag quand nañu respecter suñu institution yi nañu def politique Abdou Diouf jaar na fi jàll Senghor jaar fi jàll Abdoulaye jaar fi jàll mais tey nii ñu jàppee le mandat de Macky Sall alors que du seen moroom loolu dafa mën a ñàkk nañu muñ kuñ ni sa baay yambar la nga mer mais ku ne xam na ki man sa baay Macky Sall du seen morom ni sa baay yambar la nga mer mais ku ne xam ne ki man sa nañ ko bàyyi mu doxal ñaata candidat lañu woon juróomi candidat ñoom ñëpp ñu ni woon du jàll àgguñu min wi mu jox leen seenu toroxal ñu toog tàllal leen loxo ay yoon kaay leen ñu ànd liggéey ñu taxaw lànk ni duñ ñëw bëgg a taxaw fi mel ni ay sàmba surabaali làqatu ci ginnaaw seeni mbalaanu kiraay di wax lu bon di jëf lu bon nit ñi xeeb nañ leen bu yàgg moo tax nag bu tànn jotatee nañu xam bu baax ñu ñuy tànn tànn gi nag fii ci département de Mbacké weesuwul ànd ak la liste du président Macky Sall ànd ak la liste du président Moustapha Niass ànd ak la liste du président Idrissa Seck de même que madame Aminata Mbengue Ndiaye le département de Mbacké nag am ci une part bo nga xam ni dafa exceptionnel parce que à travers tout le Sénégal département de Mbacké rek moo fi am un candidat jeune avec derrière lui une équipe jeune compétente et très engagée pour le, le bien-être des populations de Mbacké au soir du te je pense très bien que ni danañ ko voté danañ ko jox ndam incha allahu rabbi kon donc li nga xam ne moom laay tëje mooy sant waa Ngiraaneen sant les communicateurs traditionnels parce que wax dëgg yàlla les communicateurs bu dul ñoom kenn du xam kenn Modou Mbaye Ndiaye nag nekk suñu xarit suñu wëllëre ñu yàgg ànd te it yàgg a jëf lu baax ci doomu aadama yàgg a ñaw mais aussi di sant la presse parce que lu ñuy def taw ànduñu ca ñoom mu ngi mel ni wax di sànni say wax kon donc ñu ngi sant ñu ngi gërëm di wax ni au soir du 23 nous puissions not notre victoire éclatante pour que Matar Diop soit porté à la tête du conseil départemental de Mbacké pour le bien de la population commissaire Khadim yow ma man ak yow mburu la ak soow ni gaa yi wax ndax moom mii wax dëgg yàlla bi may nekk contrôle économique bu Diourbel dafa nekkoon sama chef de service nekk kilifa mais aussi sës ma nag téye ma jàpp ma ñu ànd di liggéey bari na loo xam ne bu ma ko waxee ak moom danaan ma lool sam j'en fais mon affaire personnelle te da ciy taxaw kon donc ma bëgg ngeen jàppale ko comme ni ngeen ma jàppalee ba incha allahu rabbi ñu mën a am ndam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah